ab jullit day fexe fu mu xëyee di yokk ak defaru di di yokk ci ak defaru defaru fii ni buñ naan diw defaru na léeg-léeg ñu naan diw day diwoo ko defar mbaa diw am na ngërëmal diw waaye lool lépp nattukaay yi bu ñu kenn yóbbu ci ñuy xayaaloo ci lu sori déedéet nan xool ci sunu bopp ak nit ki ñu defaru na ay jëfam ak waxam ndax fenkat la wala déet koo ko fekk koy fen defaruut kum mën a doon nag wax dëgg moom lu mu mitti mitti mitti mitti mitti ku defar moom lu man di xew dëgg day wax te yàlla rek tax waaye foo fekk koy wax lu dëgg keppaar ku mën ne defaruut moo xam ci ñi teew la moo xam ci ñu ci ñu bu nit toogee nit man naa masla ak moom man naa kaf ak moom man naa ree ak moom waaye bu naan diis rek mu mën a teg ci deram ab safaan kooku day defaru wut te ak defaru mën na koo jafe te am aw yiwit mën na koo jafe julli yàlla nangu ko it mën na koo jafe woor yàlla nangu ko mën na koo jafe tudd yàlla loola yàlla am ca soxla it mën na koo jafe ndax yàlla lim bëgg ci nun tax mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jikko you know ku man di tërbiye ci kaw suuf lu mana mana mana mana mana mana mana mana tërbiya tërbiya gi gëna kawé kawe te gën a te set mooy nit ko xamné du lor nit ñi te dana leen jariñ tan da mën di dana mëna a danañ ko yar ba mëna di ko lor nit ñi te man ko mën ngir yalla kem katanam ki la dàq tërbiye ci nit moy ko xamanteni nitam ki mu tërbiye ki mi tërbiye doo ko fekk mukk mu doon wax katu lu du doo ko fekk mukk yi muy ko xamanteni ni garam place bu mu tok ci deri nit ñi rek lay nekk waye fuñ la fekk ya ngeek sa course du tocc tocc ya ngeek sa jukki ak lo mën yoré yore ya ngi ci deri nit ñi ya ngi ci wax ci nit ab safan loolu dara jëru ko wax nañu sëriñ bi de daana wax ni bo tuddé nit dafa melni ya ngeek ngeeg mbuusuk ay dem allah ba la sa so ci tege ab safan rek bëtt nga ko te nga bus gi su ko muy sottee ko ci sa kaw War tax li ëpp doole ci nit julli bax na lool de waye ci jikko rek yoon wu ñu yobbu ci jikko la wor bax na lool de waye yoon ñu yobbu ci jikko la jang alquran bax na lool de waye yoon ñu yobbu ci jikko la zikir bax na lool yonuni yoon wu ñu yobbu ci jikko ji la jikko nak moy yi may wax ni nit koo xamante ni lépp lu yàlla dogal ci sa mokkum jàmm neex na la te gërëm nga ko xamoo ni loolu sëriñ Tuubaa wax ni ku añaan du jariñu ci xéewal yi ci ngëneel yi kim jamonoon teel ñaari ngëneel la ngëneeleel baatin ak ngëneeleel saahir ngëneeleel baatin li mooy li yàlla def ci moom nga xamante ni ay sekkareem la yow doo ko gëm bay jaar ci yoonu ci moom moom la ko loola di mën a dem ci yow ndax añaan xam ki añaan moom mënut a gëm kook ndax da ngay defee ni kii moom kii tappale la nekk ci dóor la nekk am naa fiq la wala li muy wane bokk li muy wax bokkut ak li ne fi moom wala nangam ak nangam kon kooku moom gëmoo ko añaan jàpp na la yëmut ci na ci sa xol waaye yaa ngi koy wax ci sa làmmiñ yaa sax ci di ko jëf leneen ngëneel la ci des mooy ngëneelal zaahir xamoo ni fi mu ne léeg-léeg da am mbokk wala dëkkandoo wala leneen yàlla def ci moom xéewalu ko saayir mu mel ne yow yaa nga ciy bëgg mu tëla ba mënoo caa am ba nga koy jàmbat sax diw di dimbaleeg di def lii ak diw di def laa fekk yow sa jikkoo rafetul moo tax yàlla tere ko mu jëm mu jëf jëmale ci yow loolu rek la du leneen waaye bu sa jikko rafetoon lim am nga yow yéene ko ko ba mel ni yow yaa ko am da koy bokk te du ko sañ a bañ moom waaye la lay xañ ngëneel loola sa xolub kañaan buy tàkk boo xam yow li ngay wax ci kaw bokkut ak li ne ci suuf nga di ko def mooy tere ngëneelal baatin da yàlla dana la ko xaj waaye ngëneelal zaahir it la waroon a agsi ci yow dëgg du mën a agsi du caa génn moom moo la ko dut yéene de waaye du ko man ndax coobaree suñu borom lay doon ci moom ndax sa jikko ji ju ñàkk rafet ndax yaa ngi fees dal la kañaan boo toogee moom di wax ak moom di kaf di ree te boo génnee na ci ab ma su boobaa lu bari dana la ko xañ ci ngëneelal zahir la ñoom la xañee ngëneelal baatin la moo loolu sëriñ bi wax ne kat ko añaan du jëriñ solo la kañaan nag dana nekk ci dëkkandoo dana nekk ci mbokk dana nekk ci ku